Ah, match match bu metti lay nek parce que premier match kan yi d'habitude ay match yu metti lay nek quoi parce que entrer en matière le équipe yi dañuy bëgg ñëw woné sen bop hein et puis euh, Sénégal dañ ko jappé comme favori donc c'est l'équipe à battre quoi tu vois donc match xëccoo lay nek match bu am pression lay nek té pression bi ci côté Sénégal lay gëna nek d'abord di ñaan yalla yalla may ñu ndam mais ni ma ko également moy yakarna ni match la bo xamni euh, Sénégal war ko gagner pour ne pas faire la fine bouche parce que nous avons catégorie Mais... mais football nak ken du gagner en avance mais je pense que ni le match de ce soir yalla mën na may Sénégal je pense que Sénégal va gagner parce que Tanzanie c'est une petite équipe non ah Sénégal va gagner. beaucoup d'espoir je pense que CAN bi sera le bon, Inch'Allah. <laughs> Sénégal, sans Sadio Mané, il n'y a pas de péril en la demeure. Hein, parce que nous avons des joueurs qui ont jouent dans le même registre que Sadio Mané. Bon, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de différence. Parce que Sadio Mane dans la dernière année, il est devenu beaucoup plus décisif. Et euh, leader quand même, équipe, leader technique. Là. Donc, lolo quand même dinañ ko sentir quelque part waye benen côté aussi tamit mën nañ ko bañ sentir parce que c'est une équipe xam nga té aussi soy xol ay ñom Diao Baldé ay ñom Ismaël Sarr et tout ça ñoñu tamit am nañu ay euh, ay atout yi nga xamante ne suñ ko équipe buñ ko munti tek ci monde bi je pense que doo ko mën quoi. Euh, mais sans Sadio Mané le Sénégal waxuma Tanzanie waaye ëpp na doole yeneen équipe Sadio Mané xëy dans une équipe kenn mënul am ku mel Sadio Mané di wax ni bu fa nekkul du wàññi dara ci équipe bi mais yaakaar naa l'équipe qu'on avec ou sans avec ou Sadio Mané on devrait pouvoir gagner la Tanzanie. Oh, c'est une bonne équipe. Waouh, wow. à part Sadio Mané, les autres aussi sont des bons joueurs. Oui, man de gëm bu Sadio Mané nekkul inshallah mom moom la ñuy football. Et moi, inshallah comment bon 3-0 hein, pour Sénégal Sénégal. 3-0 euh, Wow. du Sénégal. 3-0. 2-0 deux. Je pas l'habitude de pronostiquer <laughs> mais mais ce que je peux ce que je peux dire moi, inshallah, ce soir yàlla danañu may ndam mën nañoo may ndam te danañu may ndam.